suis patriote. Waaw euh, le pourquoi je suis patriote parce que je suis un jeune boo xam ni ba ma juddoo ba léegi li ma gis neexuma ma dem nag ba gis des jeunes ñu fondé benn projet bu am solo boobu bu am sens mooy projet boo xam c'est pour toutes les jeunes loolu moo ma engagé wuloo dugal ma ci politique waaw parce que dama gis ay jeunes yu engagé wu ñëw bëgg a yeggal benn projet boo xam ni Mamadou Dia tegoon na ko mais ça n'a pas pu aboutir mais ma gisaat yeneen jeunes yu engagé wu yu am diine yu am di diine ngëm-ngëm bu garaaw nekk ay nit nitu dëgg ñëw di wax ay dëgg rek ma gis ni ñii dëgg rek la ñuy wax te si dëgg rek la ñuy dox ma xool tamit seen cursus fi ñu jaar yëpp amul fenn fu leen taqalee ma xam ni ñii c'est des bonnes personnes de par leur discours ak seen doxalin ma ni ñii kat jar nañoo jàppale ndax li ñu woote dañ ko woote pour toute la jeunesse waaw parce que Sonko il le connaît très bien son bi wax si Diomaye du tey bi wax si ay takkalitéem du tey te boo déggee xale yaa ngi son wax Sonko jamais jamais Diomaye son Sonko parce que ben lañ ci jikko ben lañ ci jikko moi jubal leeral dëggal da ngay indi gis gis nit c'est des gens honnêtes de par leur discours ak cursus ngay ci seen jaar-jaar loolu dafa am solo ci àdduna ni jaar-jaaram amul lenn loo leen mën a taqal jomaay rek nga dégg ci candidat mu ne nañ teg suñu kii de patrimoine ku nekk li nga am génne ko loolu njub moo koy def njub moo ko def at ku ñemee waaw te ñun nag loolu lañ manqué woon mooy une personne bu am gëm-gëm ragal yàlla am ko am ragal yàlla nit bu ragal yàlla dafa manqué ci nos dirigeants parce que ragaluñ yàlla parce que ku ragal yàlla di nga de à nos jours nos hommes politiques s'enrichissent facile facilement dañuy am facilement da ngay xëy tey ñu un deux mois tu es devenu milliardaire avec quel argent at noko donné légui nak de jeunesse bi ño taw conscient ma lol mouvance bi jug nii dafa graw mouvance bu bu graw mo une jeunesse bu conscient mo jug pour lan pour dindi li fi xewoon lan rupture totale lañ bëgg rupture totale

Bassirou Diomaye Faye suba di nga am conscience bu tranquille en tant que jeune en tant que sénégalais parce que bu changement bu ñëwé di nga tok fier ci yow né man bokkoon na ci ñi xeexoon pour que Sénégal am li pour que Sénégal changé Sénégal am benen air benen vision tey nag lâcheté weesuwul yow nga bañ golo ba pare di bëgg geen ga parce que ñun ñoo doyal ci Macky Sall doyal ci seen nguur kon mënuñu indil Amadou Ba ñu ne dañ koy jël boo bëggul golo kay looy doy geen ga on en a de on en a marre de ce luñ bëgg mooy lan la rupture changement total te loolu projet la des fois damay dégg ñu ne Diomaye Sonko affaire bi du Sonko c'est toute la jeunesse sénégalaise ñoo porté projet bi parce que jeune jeunesse bi mouvance bi ñu musul am ci bi comment ils sont conscients am gum gum, am dogma wu ni ñi de at lan ngor parce que tamit yalla yalla du nit quoi te deug kuko deug xam ko la vérité c'est une lumière naturelle té lumière bi dafa apparaître kon ay ko fay parce que jeunesse bi yewu nañ jeunesse bi xam le changement c'est avec Jomay. wa sama te bul ni ngi jeunes ñu génn dimanche massivement dem voter Jomay président tamit sécuriser vote yi bañ ko sàgganee tamit gars yi ñu ngi ñuy gëmloo ay affaires yoo xam ni ay naxaate la naxaate xam nga moom may lan mooy ay sàcc ci élection ak yooyu man pour man c'est des foutaises parce que ay sénégalais lañ yu yeewu jël matuwaay yëpp ci élection yi nii te ñuy gëm naa ni dix heures ñu tàqalikook ñoom dix heures xam nga tax boo xoolee tey booy def campagne même ñoom ñi ñu àndal sax jox leen ay t-shirt ak xaalis da nga leen di romb tey di caravane ñuy jubile naan la jomaay jomaay jomaay yow nga xam ni ñii kon ñoom te pare nañ nguur buy daanu nii lay mel te pare nañ léegi nag may woo tamit surtout jeunes yi ak suñu yaay yi tamit ñoom ñu génn jàppale ñu voté jomaay pour que tamit changement mun a am ci dëkk bi sonn nañ sonn nañ ci rangooñu baadoolo di siim cere buur sonn nañ ci ñi am di gën a am léegi nag dañoo soxla baykat bi yëg boppam nappkat bi yëg boppam ba peuple bi yëg boppam te boo seetloo si discours Diomaye ak Sonko yëpp il parle au bas peuple kon nag nit waru laa gën a bugg sa bopp nit ki waru laa gën a bugg sa bopp ngalawaay gars yi nañu gore génn massivement dimanche voté Bassirou Diomaye fay président pour que lan affaire bi doon nag continuité parce que tey ñii na nar a dénk réew mi li ñu woo si nit ñi xam nga may lan éveil des consciences ñoom yéen nañu ba pare kon tey ku fi toogaat rek par force di nga respecter les sénégalais di nga respecter li nga xam ni yow yaa ko digg ak ñoom ndax boko deful ñu wacc ne le eh, waxo ñu won li li nga ñu waxon mëno ñoo yé ba paré bëgg ñu ñuy nelawat te yewu nañ ba paré kèn doot ñu nelawatal te yal nañu yalla yobbu ci dimanche jamm ak salam 10 heures ñu ak ñom inshallah wa rabbi merci ok man euh, ma ngi tudd Ousmane sant euh juste li tax may jappale Jomaay si conviction la ko la conviction bo xamné ci conviction dëkk bi ni muy parce que euh, ñun biñ juddoo ba nous, daf ñuy wax 60 euh, soixante soixante te soixante ba ñu won jamono soixante soixante dix ñu tout cela mais dañ gis dëkk bi amul changement ça veut dire que Sénégal tey boo dégloo seen histoire ñu lay wax politiciens yi politiciens yi politiciens yi nga analyse xool tey lii population bi def tey boo ko rasé woon ci Sénégal mais foore ngay am doo gis lu fi état def kon 2024 jot na lépp luy état Sénégal jeune yor ko parce que jeune ci xalaat moo war a mën a gën a sonn de conviction yoo xam conviction yu jaar ça veut dire que di wax d'état nañu bàyyi di wax ay technocrate vision bu sori moo détermination bu sori ak jeunesse bu sori te Sénégal am jeunesse bu sori parce que ñoo ëpp ci dëkk bi Sénégal am na terre am ndox ressources ñuy wax facteur bi mën a jël réew développé ko développement bu gaaw Sénégal daf ko bari le parce que suuf su tàlli la am am ñaari dex mais Sénégal ba léegi dafay importe quatre vingt quinze pour cent li muy lekk sénégalais yi bu ñu feebaree du ñu faju sénégalais yi bu ñu amee problème mu justice duñu ci kontaan mais loolu bu ñu waxee ne réew muy développé la man daf may jaaxal parce que nañu xool ci réew yi nga xam ne réew yu développé lañ mais dépassé nañ ñenn yi ci yu bari léegi le problème mooy. Diomaye ax ñi mu àndal ak ñun ay jeunes lañ ñun ñoo war a mën a pousse dëkk bi mu jëm fu sori ci côté boo xam ne du ay liggéey yoo xam ne ay liggéeyu taaba taaba réew industrie moo koy doxal parce que moom mooy indi koom-koom bu diis bu mën a couvrir ñeneen yi nga xam ne amuñu yenn capacité yi parce que àdduna moo demee noonu ñii dañu am capacité un ñi am zéro léegi kii am un mooy yóbbaale kii am zéro. parce que daf ñuy wax naan aduna ñi dañuy nelaw ñi yeewu ñi faatu kii di nelaw ki yeewu moo koy denc moo koy yee bu ko yeewee ñu ànd jël kii faatu ñu dem denc ji ko mais Sénégal boo xoolee ñëpp faatu ñëpp tout le monde parce que faatu bi ni tax ma koy wax mooy nit dafay judd ba am yenn âge yi mënul dara si boppam kooku moom wax ne bu ñu denc benn nga parce que nit boo xoolee quatre-vingt-quinze pour cent si jeunes yi dañuy am quarante ans mënuñu dara seen bopp xamuñu fu ñu jëm amuñu idée amuñu xalaat topp ci discussion politique topp ci discussion yenn yu bari yoo xam ne da ngay dem ba màgg màgget nga xam ne yow perte nga sa vie dugg 50 ans 55 ans après nga décroisé benn majorité bu ndaw ñuy wax ay politiciens politiciens yor dëkk bi ça veut dire que di def relevé sa papa mooy politique après mu dem sa doom ñëw mais yooyu dafa war a jeex mais bien sûr parce que déjà maa ngi départ Rufisque sita ba té kër gor gi di def interview ak yeen gisuma ben leader bu nek ci mbéd mi budul mom moom ngi daw ba Padoa fekk fa cortésam kon ñi mu andal lu ñu gëm la kon ñoñu war nga mëna am xalaat ni ñi war nañ mëna yobbu yóbbu fu réew fu sori té damay ñaan sénégalais ñuy bayyi naan xalé du bari xam-xam wala xalé du mëna défar defar parce que dérétam day tang dédét sans dépend parce que nit ki dafa am ay différence kii am gëm-gëmu développement ak kii nga xam ne maanaam nàmpataluñu ko ci développement kooku mënuñu bokk idée te Sénégal fi mu toll moment bii nii dañu war a nàmpatal jeunesse bi ci développement développement ñaari facteur la facteur bi booy mooy formation ki ngay defal formation mu wóor ko ne bu paree formation fee la jëm mais nit koo xam ne dafay def formation ba pare formation bi muy dem di ko def yi du ci am yaakaar tey boo xoolee quatre-vingt-quinze pour cent booy yi ngay gis si ndox mi la ñuy dugg wala ñu jënd visa di dem parce que amuñu espoir seen dëkk parce que nit ki boo amee espoir sa dëkk doo fay trois millions cinq cent wala quatre millions pour tukki parce que da ngay gis ne quatre millions yi ngay fay boo ko investir fenn dina génnaat plus que quatre millions mais loolu boo ko amul mais mënoo développer mënul nekk il faut nga jox say jeunesse loo xam ne maanaam da nga leen di rassurer si lu dëgër. mooy développement bi mooy facteur première maanaam problème Sénégal si jeunesse bi pour ñu am ngëm-ngëm mooy il faut ñu gëm loolu lu leen di toogloo seen dëkk te àll bii ñu bàyyi ñëw dëkkee ko dakaar il faut ñu utiliser ko parce que demal Saalum demal euh, fu mel ni nu mu tuddati euh, Bawal zone de Casamance mais àll bi ñu dëkk li ñu dëkkee lii fa des boo ëpp. mais zone de Casamance kisi mën na développer Sénégal parce que terre la boo xam ne loo fa bay mu sax mais ñun suñu quatre-vingt-quinze pour cent lu ñuy lekk dañ koy importer mel ni ñun amuñu ndox amuñu suuf pour quoi parce que ñi ñu jiite ñoom ñoo compétent wul affaire bi si lan lañ ko teg ci ay sol costume cravate mais mënoo am benn terrain boo xam ne terrain nul la ki nga xam ne maanaam terrain dafa sax jeb bi ñor di jaay yow nga am terrain nul yow léegi kooku ni muy toogee di bànneexu wala ni muy toogee di jël temps yow nga bëgg a jël temps boobu mais kañ ngay ñor la nañu bàyyi Europe di jël ay références yu Europe le problème lenn la suñu état yi li ñu gën a sonal mooy ni ñuy gouverner moo baaxul parce que li tax baaxul benn laay jël yow mënuñu ne dañ la jox budget oto yi gën a cher nga koy dawal carburant bi la même chose dépense la nga jël plus de 50 personnes yo xamné ça veut dire que lu 10 personnes wara def 50 personnes di fa toog mais lolu pertement la pertement bi gën ngand moy suñu état yi nombre de personnes yi fa nek il faut ñu xolat lolu changement bi ñet yi la moy bu yalla dogalé Basiru jël manam pouvoir bi man duma wax nguur damay wax pouvoir parce que état pouvoir la parce que am nga légitimité boo xam ne ni kenn amu ko parce que population bi ñoo ëpp ñi si ëpp jox la ko lenn la war a def train de vie état mu wàññi ko fexe ba sénégalais yi bu ñu feebaree faju justice mooy dëgëral réew pour mu développer suñu problème mu justice mu réglé ko ñett yooyu bu ko réglé parce que mënu fi def ay infrastructure di tabax wala yooyu soxlawuñu loolu ci moom li ñu soxla ci moom mooy mu defar sénégalais yi sénégalais am ngëm-ngëm am patience mën développer jël voie bo xamné tay bu tegee bi A kenen ñëw teg B ñëw pour défar pour dëkk bi taru mais mom moment bi ni ben affaire kese lañ koy soxla liñ koy soxla moy ñett yi sénégalais yi feebar mën faju bëgg jóg pour dem transport mu am ñettel bi suñu justice réew justice bi équitable normal ça veut dire que parce que réew pour mu développer il faut justice bi dëgër moy ñepp yamchi ci tout ku jël alalu rew mi bo démé nga xam na li la fay fekk di nga xam ku togn nit moy ku am ba do la tuut comme niñ koy waxé bo démé di nga xam li fay fekk ñepp yam ci justice bi mu yam tu cela lolu ñet yoy bu ko bu ko gagné rek bu ko défé moy ça veut dire que def na lo xamné mënu comprendre sa fa la tollu il faut mu jangal sénégalais yi manam commencement day metti fin bi day neex c'est ça ok